C'est normal euh, quand même euh, président Diomaye c'est sa première visite mhm. donc euh, mu dem Touba Tivaouane waaw lu ko lu ko waral fii la ko fekk mhm. Macky def na ko Abdoulaye Wade def na ko ci suñu tarixa aussi depuis Senghor ba tey ji mhm. chef d'état Sénégal dafa am dafa am place ci Touba wala Tivaouane ci église suñu régime nag euh, baax na ñu fàttali ko euh, suñu euh, état bi état laïque la ah, état laïque mooy que que chef d'état bi dafa war a sàmm diine mm-hmm. ñun ci suñu société diine dafa bokk ci société sénégalaise mm-hmm. mën nañu wax sax ci ciment bi la bokk mm-hmm. état bi ni mu amee solo ci société sénégalaise noonu la diine amee amee solo donc diine ak état ñoom sa ànd Euh, léegi euh, c'est vrai que Bassirou Diomaye xale la. Mhm. mais suñu gisee taxawaayam biñ ko falee ba léegi am na yar ak teggi te loolu. Mhm. Euh, buñ koy wax c'est-à-dire am na fu mu jóge ci société bi la jóge mhm. donc sa personnalité ak valeur yi mu wane depuis buñ ko installé ba tey ji wane na en tout cas ci Sénégal la jóge ci sénégalais yi ñoo ko fal. yaakaar naa luñ doon xaal ci moom la def mhm. dem euh, ziar euh, les xalif discuter ak ñoom mais loolu rek doyul c'est mhm. c'est vrai que am na lu ñu ñuy xaar ci ñoom xam mhm. nga du bu ñu ko falee ba léegi ñu nit ñu ngi wax na Sénégalais ñu ngi xaar ñu ngi xaar mais nitu diine yi aussi am na lu ñuy xaar ci président bi bon nee na dina leen dina taxaw Touba dina taxaw Tivaouane ak feneen ak feneen pour jàppale les xalif bon boobu benn pàcc beneen pàcc bi mooy que moom en tant que chef d'État dina am politique publique mhm. en direction de Touba Tivaouane église et cetera bon mhm. defe naa loolu nag euh, foofu lañ koy xaar ban taxawaay la war a am mhm. euh, ci wetu xalif yi benn ñaareel bi ban politique publique parce que quand euh, bu ñu fàttali ne que problème bu am Tivaouane bu am Touba yàgg na fi problème assainissement problème euh, éducation problème euh, sport problème euh, politique publique ñu nekk Tivaouane ak Touba yàgg nañu joytu l'accès au au, au service ouais, de base léegi gouvernement bu bees am na bon ñu xaar boo xool ban politique publique la gouvernement bi nar a am mm. est-ce que dina àgg Touba Tivaouane est-ce que population defe naa daal njeexital bi lu ñuy xaar mooy askan bi mm-hmm. est-ce que dinañu gis njëriñ ci euh, gouvernement euh, Diomaye mm-hmm. maintenant euh, c'est vrai que bon les autres questions yu ñu doon wax pour man bon est-ce que ils étaient contre les confréries est-ce qu'ils étaient bon ça c'est de la campagne politique seen mm-hmm. normal mm-hmm. c'est seen normal mais campagne bi moom defe naa daal weesu nañ ko tey ji Sénégal yi ñoo ko tànn kenn mënutul wax que euh, sénégalais yi ay euh, tijaan lañu kot wala murid lañu wala chrétien lañu c'est tout le monde qui a c'est la majorité du pays c'est le président donc, de tout le monde euh, voilà de le président de tout <laughs> donc ñëpp ñu ngi xaar ci moom mm. mu euh, il l'a dit je crois ci premier discours à la nation c'est que ñun suñu chance mooy on est une société résiliente am na lu boole Sénégal lépp ju tout le monde tout le monde le dit ah Sénégal euh, bon mënul am ñaari bopp hmm. su bëggee indi indi ñaari bopp c'est sûr qu'il va pas passer tout à fait donc yaa am na lu mu war a sàmm en tout cas hmm. que Sénégalais yëpp ñu ngi xaar ci ci moom euh, donc c'est une visite importante bon protocolaire maintenant on attend la hmm. la suite Bon, maintenant les autres questions politiques. L'un des, l'un des journaux a dit critique par exemple critique daf ne Diomaye des choses de détracteurs mooy li ngay xaw a wax li nga li nga li nga xaw a wax léegi rek. le cest à Sénégal moo tëddee noonu. gis nga <laughs> par exemple temps temps Senghor. Mhm. nit ñi dañu gaaw a fàtte. mais ñu ñu sësoon gauche bi lan lañu doon jiiñ goos bi gëmu leen yàlla. vous êtes des athées que yéen faalewu leen euh, famille faalewu leen diine faalewu leen dara. Mhm. Euh, Karl Marx ngeen gëm gëm. amul lu ñu leen waxul. Mhm. mais boo xoolee gauche bi plus tard mhm. ñoom Bathily <laughs> ñoom Dansokho et cetera et cetera waaw mhm. les gens ont mhm. dans leur parti il y avait des athées il y avait des, des musulmans des catholiques le parti politique au Sénégal musul nekk une seule entité politique moo ñun heureusement je pense que loolu moo ñu sauvé c'est-à-dire am parti politique ñu ne bii xeet la bokk wala bii religion code ñun dañu teel a yeewu bon boo gisee Abdoulaye Wade le dernier exemple que je citerai c'est Abdoulaye Wade la am na amoon luñ ko ji ñu fii ah la mais terewul que les à vingt six ans d'opposition les Sénégalais ont fini par comprendre le, mmh. c'est la même chose mmh. c'est-à-dire que Pastef euh, différence bi mooy que par am euh, ñoom euh, Sonko ak Diomaye diine bi ñu am mais gauche bi mosul am loolu. Hmm. cest à ñoom Pastef la ñu ci bari xamuñu sax lu xew France xamuñu xew États-Unis mais gauche bi foofu la jànge foofu la màgge foofu lañ ko formé. Hmm. soo gisee taxawaayu Diomaye ba tu ci dis que ça c'est l'éducation mouride. donc kooku mënoo yeewu rek nga ne salafiste la te yow xamoo sax lan mooy salafiste. tout à fait cest à ñu on n'a pas jiiñante daal ci politique. non on n'a pas de culture religieuse. Mm-hmm. gis nga même les mourides wala les tijaana ñu xam dëgg-dëgg yoonu tijaan <laughs> bon nañ nañ ma baala ah. mais c'est vrai l'analphabétisme dafa bari on ne pas notre religion. on ne mm-hmm, va pas au, fond. donc ñoom tamit ji ñooñu la ay salafiste la ñu ay intégriste djihadiste mais tout ça aujourd'hui euh, en tout cas ça tombe à l'eau pour la bonne simple raison mm-hmm. que le PASTEF est le principal parti aujourd'hui au Sénégal su doon des salafistes tu penses que Sénégalais dinañ à salafiste ba yóbbu ko ci nguur pour cent mm. je pense que bon comme ni mu ko waxee c'est des critiques c'est normal que que nga critiquer sa adversaire pour le déstabiliser. pour wàññi dooleem mais maintenant les questions de fond son à venir pour moi. Mm. c'est-à-dire que man li ma gisee en tout cas il les jeune en tant que président il a une ambition xaaruma ci moom rek mu nekk taalibe comme certains journaux l'ont dit mm. non dafa war a mot nekk. rupture la wax maa ngi xaar que xalif tijaan ak xalif murid soo jëlee rek Touba sëñ yaa yàgg naa ko wax il a un projet pour Touba ça mm. c'est clair nga nangu wala nga bañ ko nangu su gëstoo nu mu taxawee euh, éducation bi l'université l'école coranique le projet agricole l'assainissement l'ordre il a un projet bah, Bassirou qu'est-ce qu'il va faire avec ce projet là mm-hmm. il faut mu réfléchir pour voir c'est quoi le projet état bi fan la war a taxawee projet Serigne ça c'est un mais deuxièmement le plus important pour moi c'est que Touba ne peut pas être une grande ville si l'État ne soutient pas Touba mmh. honnêtement il faut que l'État du Sénégal réfléchisse sur Touba dans cinquante ans c'est quoi tu as 3 millions d'habitants à Dakar bon xëjituñu fii sur les 25 ans 30 ans qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de Touba pour mu nekk il faut une politique mhm. ba Tivaouane c'est pareil mhm. on parle de deuxième ou la prochaine capitale euh, économique du Sénégal pourquoi pas dans la zone de Thiès ou dans la zone de Touba <coughs> donc il faut que ñoom lu ñu xaar ci ñoom s'ils veulent vraiment la rupture il faut qu'ils soient audacieux ñeme ko. non ñeme ko. Mm-hmm. c'est-à-dire que ñun ñun ñëpp on a on a les depuis 60 ans. <laughs> mais kenn ñemewul kenn on n'ose pas Wade jaar na fii Macky na fii bon chacun jongle. Mm. mais rupture bi ñuy wax. bah en tout cas je, on attend beaucoup beaucoup de de Diomaye de son son gouvernement. Mm. s'ils s'ils arrivent euh, à faire de Touba et de Tivaouane des pôles économique des pôles religieux. ma je suis certain que euh, le développement du Sénégal peut-être passerait par Touba et Tivaouane, les pôles religieux là. Mm -hmm. cest à développer suñu réew bi sans les capitales religieuses. Moi, je, n'y crois pas. Mhm. que ñoom ils ont de l'autorité ils ont des projets ils ont la volonté. et puis sénégalais ñu ngi leen di déglu seen gannaaw la ñu nekk et Popenguine même et Popenguine aussi. et Popenguine non bon je parle pas peut-être de. oui les pôles religieux je cite juste je cite juste. non je veux dire que l'église par exemple. waaw l'église le président Macky Sall avait déjà commencé. la force de l'église c'est que c'est pas comme les musulmans mourides ou euh, mm. tidiane. l'église elle est capable de produire. Mmh. Mmh. l'église c'est la réflexion mais ñooñu suñu leen jegoon tey ji euh, moi je suis sûr et certain qu'au niveau de l'église nga ne leen la politique de l'éducation de l'enseignement supérieur ouais, de l'emploi ouais, ouais. l'aménagement ñoom am nañu bagage mm-hmm. mais soo fa demul bon ñoom dañuy toog non duñu dem ci yow l'église a une place essentielle à, à jouer chez nous bon d'ailleurs même toutes les craintes euh, qu'on a dans le Sahel, c'est le, le, les problèmes religieux, mmh. les mhm. problèmes culturels, les problèmes ethniques. Mmh. Et je pense que l'Église a une, comme euh, d'ailleurs la, la, religion musulmane, sans compter maintenant, bon, c'est vrai, on oublie ça. Les intellectuels. Tout le bah, monde. Les intellectuels. Il a besoin de tout le monde en fait. Le président, il a besoin de tout le monde.